waxtu wi jot na ñu ngi nuyu ñëpp te di jaar ñëpp te ñaan yàlla sunu borom defal ñu tawféex ak siir ba lépp luñ fi waxtaanee mu doon njariñ dégg ak topp ñu ngi nuyu ñëpp sénégalais yëpp bépp sénégalais ak foo mën a ne ci diaspora bi ak ci àdduna bi noo ngi lay nuyu ci turu Touba TV Argentine di sant yàlla bu baax bi mu ñu dellu suwaatee mayaat ñu ñu fekkee dibeer mi ba war a toog ak waxtaan ak yéen ba tax na ñu ngi dellu siwaat ci seen émission di soo ak waa diaspora bi tey nag ñu am contentement bu mag ak mbégte ak sag ndax jëmm ji nga xam ne moom la ñu am tey ci sunu invité muy jëmm joo xam ne boo ko tuddee daanaka jarul présenté ndax day jëmm joo xam ne boo ko tuddee ci jëf ju baax ja ci social ba muy jëmm joo xam ne boo ko tuddee xel yépp dem ci ordonnance ya jëmm joo xam ne boo ko tuddee xel yépp dem ci opération ya ci évacuation yi ci ci ci ci ci taxawu ñi nga xam ne sunu borom dogal na ci mbënn mi weesu nim leen taxawoon muy taxawaayu taxawaay bu am solo taxawaay bu fés taxawaay boo xam ne jariñ na ña nga xam ne mbënn mi dal na seen kaw fànn woo laal fànn woo laal ci wàllu sociale ci wàllu culture ak ci wàllu développement fànn woo laal rek boo ko tuddee ñépp xam nañ ni dugal na ci loxoom te dugal na ci loxoom dugalin woo xam ne njariñu kese te kenn ku ne yëg na loolu ba tax na nu ngi koy sant bu baax jëmm jooju mooy monsieur le président bi nga xam ne moom mooy samp le mouvement gëm sa bopp waaye dolli ci beneen grade muy le président directeur général de D-Médias monsieur le président Bougane Gueye Dany Touba TV Argentine noo ngi lay nuyu te di la siyaare bu baax a baax te di bëgg ci sa disponibilité di kontaan ci dalal gi la dalal fii ci Touba Argentine TV monsieur le président Bougane Gueye Dany noo ngi lay nuyu nanga def mbaa yaa ngi si jàmm. ñu ngi lay sant ñu ngi lay sant bu baax euh, Cheikh euh, Diagne ñu ngi euh, jotaay bi. alhamdulilah di sant bu baax mbokki sénégalais yi nekk foofu ci Argentine. jërëjëf di teewlu à travers Touba TV Argentine. Uh-huh. di leen ñaanal suñu borom. Uh-huh. la ñuy ak la ñuy wuti mu yombalal leen ko. amiin. dolli leen tawfeex akub taysiir ba lépp lu am ñu mën ñëw fii ci réew mi suturloo ko ànd ko ak seeni njaboot amiin kon yàlla na suñu borom euh, yombalal leen la ñuy yóotu yàlla suñu borom sàmm réew mi sàmm Sénégal amiin monsieur le président nga baal ma rek ma nuyu sunu sunu mbokki sénégalais yi nga xam ne ñoo ne ci diaspora bi di teewlu saa su ne waxtu wu ne ñuy teewlu Touba TV Argentine lu ci mel ni fii ci dëkk bi nga xam ne ku ci mel ne Moustapha Sène lañ ko Moustapha Sène mi nga xam ne tey jii boo ko tuddee ñépp xam nañ ko ci réew mi l'infatigable Moustapha Sène ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ci di ci teg rek président association bi nga xam ne mooy Arfan Diédhiou ñu ngi koy nuyu te di ko siyaare bu baax di nuyu ñi nga xam ne ay jàmbaar lañu ay borom Pastef ay borom jom ku ci mel ne ah, Bamba Jonn ma nga mëroon muy jàmbaar joo xam ne moom it il tout le temps disponible baa Bamba Dione borom moroon ñu ngi lay nuyu te di la ziar bu baax teg ci Baye Mor Ñang muy Baye Fall bi nga xam ne bëgg Sëriñ Fallu ne moroon ñoom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko ziare waaye teg ci rek ay Momadou Lamine Faye taalibe taalibe Sëriñ Mansour bu mag bi ñu ngi koy nuyu te di ko ziare bu baax a baax a baax di ci teg rek jóge fii Buenos Aires dem ba ba ba ba Cordoba nday ndeysaan jëmm yu baax ne fo ke fa e, ke ne ke fa ne ci Cordoba muy Serigne Mbacke jiite kooku moom mooy la coordinateur de gëm sa bopp mouvement gëm sa bopp fii en Argentine muy jëmm ju yaru président jëmm ju jar a jàppale. muy jëmm joo xam ne. moom dafa da ngeen a bokk doctrine. waaw muy gëm sa bopp bi dama ko gis ci moom muy jàmbaar jàmbaar lool te te te bëri Pastef te li muy nekk nii da cee nekk ak xol ku jar a jàppalee ngi noonu monsieur le président maa ngi la koy ñaan te di la ko dénkaat muy Serigne Mbacke jiite ca Cordoba waa Cordoba yëpp ñu ngi leen nuyu te di leen ziare ba tax na dañuy dugg rek ci ci ci ci waxtaan bi monsieur le président Bougane laaj bi ñuy tàmbali rek ginnaaw bu ñu la présenté te présentation bi sax du jar muy gudd ndax sa jëf daanaka mooy wane say kàddu ne du bari ndax danga ko jëf ba noppi te loolu sénégalais yépp teg nañ seen bët te ñëpp gëm nañ ni loolee yow newoo ci rek ay wax rek da ko boole ak ay jëf te population sénégalaise yi tamit am na fu ñu la teg fu kawe kawe kawe kawe kawe kawe te am nañ ci yow yaakaar loolu moo indi tey jii Touba TV Argentine bëgg a dalal la waxtaan ak yow waaye may la opportunité tamit nga mën a waxtaan ak sénégalais yi nekk ci diaspora bi surtout ci Amérique latin bi loo leen di digal wala loo leen di euh, ñaax wala ci ban ban information nga leen di jox ci sa mouvement waaye li may tàmbalee laaj bu njëkk bi rek mooy monsieur le président euh, laaj bi ñu lay laaj mooy yow sa wàllu bopp da nga da nga former créer mouvement bi ngir lan lan moo tax nga créer mouvement bi yow da nga bëgg nekk un mouvement boo xam ne da ngay da ngay soutenir rek wala danga nga aspirer pour être le président de la République du Sénégal loolu mooy laaj bu njëkk bi. maa ngi lay maa ngi lay sant bu baax. biir na ni yow ci uh-huh. euh, euh, yoon wi ñu. Euh, euh, nañu ñu tàggate ah. ak pas-pas yu nit ñun ah. euh, yaakaar naa ne hmm. romb nañ fu ñuy bootoo romb nañu fu ñuy doone ku ñuy yóbbaale ah. nde suñu ak yoon wi nga xam ne ca ñu jox hmm. la wan mooy pas ak liggéey hmm. liggéey woowu dañu ko wér li nga xam ne moom mooy euh, euh, yaakaar naa ne. Mhm. Euh, ñu jëlee mhm. sax di gëm sa bopp. Mhm. xëy moom ñi ñuy seetaat ñi ñuy def ko ci Argentine ñu nekk ci diaspora bi. ñooñu kenn du leen wala sax di soññ gëm seen bopp. ñu gëm seen bopp bu tax ñu bàyyi lépp dem wut. te yii liggéey di mhm. liggéey dong ngir mën a ñàkk jariñ mhm. ñu dafa am kàddu bu am solo bu suñu euh, maam maam Cheikh Ibrahima Fall daal lépp lu ñàkk yi mhm. maye ñu ne lépp lu ñàkk yi maye gis noonu te loolee ñu nit nekk te jàpp nañu liggéey dong moo tax nit mun a teg liggéey dong moo mun a ñu am teraan. dëgg la euh, liggéey dong mooy tax nit jàppale moom ñu euh, réew mi fi mu toll. gëm mm-hmm. nga euh, ne ñun duñu parti politique. Mm-hmm. ndax ñaaw na. tàkkal mm-hmm. nañu ko ba kenn bëggul ñu la ca. dëgg la. te moonte de li ñuy def saa su ne. ba ci ki nga dafa bàyyi fii réewam dem bitim réew ngir sàkku ci mhm. moo xam lu muy doon xam-xam muy alal ngir dellu ci réewam mun a jàppale askanam mhm. ngi ci yoon ko parce que loolu mooy ko politique aw ñu leeral na mooy pexe yu sell yu ñuy pexe ngir mun a dimbali suñu askan mhm. pexe yu sell te ñu ngi teg ngir ñu mm-hmm. loolu mën na xaraam waaye ñi koy def mm-hmm. nañu ko gàkkale nañu ko ñaawale ñu ko doy dale mm-hmm. parce ci daal ak kilifa yoo nangu ñu tax ñu bu ñu waxee niw diw politicien la jàpp nañu ni yarkat loo xam ne ku nekk yow jarul ñaar tiit ci ba sëñ Abdoulaye bu baax la wax ni mhm. boo bëggee xam ndax nit kii mhm. jara bàyyi xel la mais ndax kàddu daawa rek mhm. kon loolu am solo ñun dañ ciy bàyyi xel alors pour ci bopp yii ni bi tax a jóg mooy seet li ñu def ba fexe doomu réew mi gën a bëgg réewam dëgg la ko ci liggéey dong nag jublu ci xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllu njub njub mhm. njaaj mhm. yi réew mi tàggat leen xam ne lépp ci njàngalay mag ba xam ne lenn mën a tax nit am teraanga lu may liggéey te liggéey ci jaamu yàlla dëgg la kon jàppal ne xalaat boobu ak yéene boobu ku mu ci ndaw mhm. gëm sa bopp xam nga man wax saa su mhm. damay wax ni man du ma mu mhm. gëm sa bopp du waaye bokk nañu ci ngir lu soppar ñu réew mi te xaaruñu ba tey ñu koy dox yàgg ñu jaare ko ci yee doomu aadama jaare ko ci li ñu suñu néew ñu bokk ak tamit. Mhm. waaye tamit rajo bi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi xam ne dañuy topp réew mi. Mhm. dañu ko au cœur du dispositif. avec culture des perspectives ñi ñu xam ne Sénégal ñi ñoo ko moom. Mhm. ak France bi ko defar ñun suñu bopp dong ñoo ko mën a defaral suñu bopp. waaye faw ñu bàyyi ci njàngale ak ci day mag que man jàpp naa mhm. mhm. jërëjëf tontu bi tontu bi leer na mhm. waaye dama ci dama ciy yokkaat dama ciy yokkaat damaa bëgg mu gën a mu gën a leer ndax damaa bëgg maanaam nga ni nga baaraam ci sa ci sa jëmu sa jëmuwaay ndax man dey bu ma toogee tey ji di di la déglu nii ngay wax dinaa xam li tax ngay wax ndax mel na ne ñoo bokk ni ñuy waxee ndax man dama gëm ne réewu Sénégal doomu Sénégal yi ñoo koy defar amul jàmbur buy jóge feneen ñëw dina ko defaral amul ko ak keneen kooku ak keneen kooku ku mën a doon nag ak keneen kooku doole ju mu mën a yor ak keneen kooku possibilité bu mën a offrir la jeunesse sénégalaise mënul ñu koo defaree. Mhm. niñ ko war a defaree. ndax jeunes yi mhm. de man falaay falaay falaay falaa falaa falaa féete ba tax na mhm. lii nga xam ne tey jii jël nañ ko dem nañu ba. gëmatuñu ne mënees naa toog Sénégal def li ñuy wax tekki tekki sax. man dama ci amoon beneen beneen gis-gis waaye loolu du am solo boobu sama gis-gis personnel la waaye li ñuy tuddee tekki sax par man pour man du tekki waaye ba tey ma fekk si mhm. leen ci niñ tuddee tekki wi mooy ku am am maanaam ku mën a mhm. faj aajo yi mën a faj mhm. buumu gàcce yi loolu lañ tekki la lañ tuddee Sénégal la lañ tuddee tekki waaye ma fekk ci leen ci loolu ba waxtaan ci ak loolu maanaam ñi nga xam ne góor jeunesse bi gëmatuñu Sénégal gëmatuñ daray Sénégal tey jii may wax ak yow. bu fekkente ne aéroport dañoo taal avion yi ne Espagne Espagne waxuma la jeunes yi rek góor dina dem jigéen dina dem. ndaw dina dem bool dolli ci sax borom kër yi danañu wan ginaaw seen i kër dugg ci avion yi ngir génn waaye loolu loolu tey ji yéen ñi nga xam ne da ngeen aspirer ah aux destinées du Sénégal yéen ñi nga xam ne da ngeen aspirer pour changer les mentalités pour changer les comportements yéen ñi nga xam ne tey ji da ngeen taxaw ci la la vitrine du Sénégal mën naa ko tudd noonu la vitrine du Sénégal nga xam ne dañ leen di déglu ak di leen seetaan ak di leen topp ci seeni activité ak seen i action yi ngeen di def lan lan tey jii lan moo indi lii nga xam ne tey jii moo indi sénégalais yi démystifié sénégalais yi bëggatuñ Sénégal gëmatuñ ko lan moo waral loolu monsieur le président. alors maa ngi lay sant bu baax euh, euh, xam euh, uh-huh. wax waa Argentine. Sénégal effectivement taxaw ci saa su ne nekk bari waaye dama ci dama ci sant ñenn ñi ci mel ni yaay mari euh, Maam Khady Senghor koy bu baax wàllu njaay njaay ndeng ay bari nañu bari nañu ñoo xam ne ñu ngi ko dëgg la euh, di xar sax mhm. euh, li tax yaakaar nit ñi amatuñu ko mhm. euh, am na tey suñu wax ak ko bëgg dem bitim réew may wax waa diaspora damay nekk am na mhm. que man je suis du teewu sénégalais bu New York aux bi ma paree la ma doon dama damay ñibbi ñu bari ni ma xanaa ak daw mhm. yow wala yow sa xel ñaxut dëgg la ma ne leen damay xam ne suma teg nekkul bitim réew dama gëm ne suma réew la booba mu ne ma bopp lenn mhm. waaye gëm-gëm bu nekkoon ci man tax na mhm. may am xëy na koy amee bu ñu ñëwoon tey ci situation bi dina ci am yaakaar lool lool lool te yaakaar naa ne war naa cee mën a wax. dëgg la effectivement. li tax ñàkk yaakaar tey moo tax yéen. Sénégalais yi nekk diaspora. Uh-huh. bi. Uh-huh. bu fekkoon ne la ngeen ci réew amoon leen ko amaana xëy du ñu dem fenn waaw waaw. waaw na ngeen ci bàyyi woon. Uh-huh. jàpp leen ne ñu ci woon métti métti métti tey jii gën naa métti lool. ba ñi nga xam ne ñoo koy dund moom jàpp nañ ne ci safara la nekk. moo tax duñ ñenn ñi di wax naan. Mhm. bu gone yi di dem di xaru la ma ne gone yi li ñu tax wax rek lañ war a bàyyi xel dinañ yedd. Mhm. yedd yërëm dëgg la ci xam nga lu mhm. ci boppam dañu leen jaay. yaakaar ñi jiite. ne ñoom suñu jëf yi stop. gaa uh-huh. yaakaar ne APR yaakaar. gaa mm-hmm. yi dundee yaakaar ñu ñu deux mille ñu ne Benno Bokk Yaakaar. Uh-huh. Yaakaar. kon yaakaar tas na. ah dara fekk ci situation boo xam ne muy situation jàngoro di mbas mi di. mu yàq lu bari ci mi. dëgg la rawatina am amu doomu aadama yi mhm. su may wax ak sénégalais yi mhm. ñu wax ak ñoom ci li nga xam ne muy dëgg mhm. te bàyyi di leen nax dëgg li ñu mën a baal ab politicien kenn ko baal buggaan bi buggaan bi un homme d'affaires Tidiane Gueye c'est un opérateur économique. Uh-huh. li ma ci yéene man Bougane. Uh-huh. parce que damay wax saa su ne. Uh-huh. damay wax man saa su ne. mais dama doonoon surga. di góorgóorlu. sonn ba doon njiit. dëgg la. ma gis ne soo leen ma joxee gone surga yi. Mhm. ma def ñoom xalaat wan leen yoon bu ñuy jaar. Mhm. ngir mënal seen bopp. te doon ñooñu ay njiit. Uh-huh. li sëñ Saali waxoon rek. Uh-huh. jox leen ma ndaw ñi. dëgg la ma def ci ñoom suñ Tuubaa defoon ci man. dëgg la kon. Mhm. li ma muy réew mi faw d'abord nit kiy liggéey mën a am teraanga ca la muy liggéey. dëgg la fileeg nit ñi ñu ngi liggéey di sax. fileeg mm-hmm. nit ñi ñu ngi liggéey di wala kaana. Mm-hmm. réew mi du soppiku. te ñun moo ñu nekk bitim réew. Mm-hmm. gis ngeen ne la nekk Argentine. ay nit ñoo ko fa. la nekk Brésil la nekk Amérique ay nit ñoo ko fa. tey jii Sénégalais bi bu ñu def. Sénégal. Mhm. ñun ñooñu sañu mhm. leen koo def ay Argentine. dëgg parce que am na ay loi. Mhm. jaarale nañu mbir yi ci yoon ba ku wàcc yoon yoon dana mun a daal ci sa kaw. dëgg la waaye nit ku ubbee it ànd ak fullaam ñàkk la muy ñàkk dana ko jariñ. malheureusement yaakaar bi ni ko tax mooy fii nit day ñàkk di torop nit di politique di tedd. dëgg nit sàcc. Sokane. dëgg la. li bamb ji Sénégal dañ fiy fansaaj. si di fi toroxal jàmbaar. jàmbaar waaw loolu di ko war. Mhm. mooy doxalinu politiciens yi nekk ci réew mi alors loolu pour dindi ko aussi. Mhm. il faut ñu nangu ne ñun tamit y a part de responsabilité. dëgg effectivement. xam nga nit bu amatul yaakaar. Mhm. amatul dara lu muy def ci kaw suuf euh, malheureusement les jeunes yi mm-hmm. dem ci géej foofu lañ toll mm-hmm. xam nga tey boo gisee sax am soixante ans soixante cinq ans mm-hmm. mënul boppam dara yow jeune bi nga am vingt cinq ans wala trente ans xool sa bàyyi projeté wu ci moom mais dans ans uh-huh. man comme suma bàyyi bii laa waran ci ma avenir réservé mooy daanaka toroxtaange parce que sama baay mënalul boppam dara. te man nit ñi doomu mënalul ko dara. Mm-hmm. kon nit kooku faaw mu solution pour mun a seet bu mu mën a def. Mm-hmm. ngir am teranga dama dem démb dans le bassin arachidier. ah ah Fatick. ñu ngi tourné. Mm-hmm. dem Fatick. dem Sorokoñ. dem Ndande. Euh, duñ euh, luuma euh, dem dem dem ci luuma yi. Uh-huh. dem Kër Madiabel. Uh-huh. dem fa nga xam ne moom moo di Wakk Nguna. Wakk Nguna dem Jaamal. Mm-hmm. dem Kër Bukki. Mm-hmm. dem Ndiour dem Kébé na uh-huh. ma ci jublu woon. ñoo dem waxtaan ak baykat yi lan mooy seen problème mhm. baykat yi ma waxtaanal yëpp. kàddu gu dund la. benn kàddu bi la. doon benn kàddu bi. Mhm. diggante sunu koñ ba ngeer baabu. waaw kër soose lisira. Mhm. ñoom ñëpp benn kàddu bi la ñu baykat yi dañ leen. taxaw dañoo taxaw ci toroxol leen baykat yi dañoo taxaw mhm. ci yàq seen adduna dëgg nit ki mu am kilo gerte mu ngi koy jaayee juróom fukk juróom fukki dërëm ki am kilo gerte mu ngi koy jaayee juróom ñaar fukk di ko jaayee actuellement juróom ñaar fukk mhm. yow nga ñëw taxaw ne man maay buur man maay nguur xam nga moom laa bëgg. Mhm. mooy kilo gerte boobu ñu koy jaay juróom. juróom fukk waaw moom la ñu wax. amee juróom-ñaar kilo gerteem. Mhm. nga ne ko da koy jaayee juróom fukk bi euh, bu jam ca commune bu Nganda. Mhm. mais mais ñoom jaay gerte juróom-ñaar fukk ak ñooy mbëkkat ñu ngi gaare gaare camion yi di sol gerte gi mhm. ñooñu boo ko jaay ci juróom-ñaar fukk bàyyi leen ko ci juróom fukk mhm. waaw ñu ngi ko jiite ay nit ba noppi def ñaar mhm. ñu jooytu man di ñu leen ñu bëri ñu dara bopp ñaar fukki kilo ci kër uh-huh. nga am juróomi ñu ko jël téeméeri kilo man la jëriñ te dañ may fayloo impôt bi ne boo bii mu nekk mm-hmm. xam nga tey Cheikh Sénégal su uh-huh. wax ma wax la uh-huh. mooy li may wax man je suis un homme d'affaires donc du ma wax euh, wax taxandal effectivement au Sénégal on a seize millions sept cent mille doomu aadama ñoo fi nekk ah, seize millions sept cent mille sept cent mille mm-hmm. xam nga ñaata nit ñoom la ñu fiy liggéeyloo di fayeeku am salaire déedéet ñu ngi liggéeyloo mm-hmm. eh, xam nga suñ journalier sax day liggéey li ma lay laaj mooy dans la fonction publique ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoom la état bi di fay. dinaa ci ñëw léegi. Euh, fonction publique. Mhm. ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy liggéey. Mhm. am salaire fonction publique. ñu ko fonctionnaire wala décisionnaire. cent cinquante trois mille deux cent la cent cinquante trois mille deux cent. te lu ma lay wax nii mu ngi ci këyit woo xam dañ ko tuddee note note note conjoncturelle. dugg ci ministère de l'économie ko en juillet deux mille mhm. moo tax su ma déggee yenn kilifa yu nekk ci nguur gi. naan gouvernement du cinquante mille emplois. vraiment. ñun war nañu bàyyi nax gi ñuy nax nit ñi. Sénégal un million quatre cent mille doomu aadama ñoo fi liggéey mhm. un million uh-huh. quatre cent mille aadama ñooy ay employé dañuy liggéey mhm. moo xam dafa am moo xam journalier la uh-huh. moo xam euh, euh, ci beneen anam la mhm. ñu ne la trente pour cent ci un million quatre cent yooyu ñoom moo nekk ay salarié maanaam ñu fayu weer te ñooñu di fay weer suñ seex cent cinquante trois mille deux cent fonctionnaires ñoo ci nekk kon ñi ci def ay ay salariés la ñu ay mhm. ñu ne ñooñu ñu toll à près ci deux cent soixante dix mille mhm. waaye xam na Sénégal ñaata doomu aadama ñoom di fi daan seen doole bis bu nekk dans le secteur informel dix millions de personnes su ma siy dix millions doomu aadama ñu ngi Sénégal di daan seen doole di gën uh-huh. waaye lu néew téeméeri junni ñoo ci am salaire weer bu dee kon ñu ci des ñëpp ci secteur informel bi daanaka la ñu nekk. ay góorgóorlu lañu million cinq cent. waaw léegi ñooñu di góorgóorlu machine ñëw nga ne leen toog leen seen kër bu leen génn bu leen liggéeyati. Uh-huh. waaye yéen ñi am salaire te matu leen juróomi téeméer euh, euh, juróomi téeméeri doomu aadama. Uh-huh. yéen ñi am salaire dinaa man ñetti mille euh, mille milliards. lépp uh-huh. ko ñëw dimbali leen ñun ci uh-huh. wax ne réew mi dafa métti. il faut ñu nangu ne nekk ci réew mi ñuy jiite ñoo ñu ko yóbbee. parce nan muy jëlee décision judiciaire bokk na ci di ko liggéeyee ay wax saa su bi saxaar juróom ñett fukki at ak juróom la dafa am lu lu ñu jàngal ñun ndaw mooy leadership leadership mhm. xam nga leadership mooy jël décision ñu contesté ko biñ ne ko tëjee jàkkee dafa ne tëjuma jàkkee waaw waaw waaye taxaw nañu ànd ak yéen nga xam ne. mooy nag jël deux ci taab. dëgg la. bi ñu def ba jëm jëntal ba ñëpp d' accord nañ ne il avait raison. waay bu ne pas fermer leen. parce que dañu waroon jàkkaarloo. effectivement bi ñu mu ne moom day màggal. dëgg la. jamono jooju waxi relance économique ma def un article. ne ko Macky Balla. relance économique bi ngeen ñi tàmbali xeltu yow tàmbali nga ko bi nga ni màggal day am parce que bi ngeen ne màggal ñu dem nañu jëndi nag mhm. ñu amoon lu ñuy jaay dañu ñu ko wuti ñëw teg ko ñu doon commencé nañu waaj mhm. kon relancer nañ économie bi mhm. alors maintenant ñu des nag mooy ñu comprendre ne le secteur le secteur formel ne représente pas 7 pour cent. Mhm. de notre économie. effectivement. Uh-huh. quatre-vingt-dix pour cent de l'économie sénégalaise mu ngi reposé ci informel. mooy menuisier bi mooy maçon bi mooy mécanicien bi mooy tailleur bi mooy commerçant bi. Uh-huh. Uh-huh. mooy ci dem ci luuma yi et cetera et cetera kon ñooñu. Mhm. fi nekk yërëmuñu leen. Mhm. fi nekk tegu leen teguñu ci yoon moo xam ne la ñuy liggéey ci seen teraanga fa ñuy jógee. fi leen teguñu leen ci mhm. ñu am teranga duñu am mukk yokkute fi leen baykat bi yërëmuñu ko mhm. teg ko ci condition yi nga xam ne dañu tax mu mën ko toppar ñi mhm. ci ko moo gën di ko jànnoo kilo gerte téeméer ak juróom-ñaar fukk wala mu mooy téeméer dëgg la kon ku ci mën a am juróom téeméer nga naan ko jaay ko juróom fukk ak juróom-ñaar fukk juróom benn fukk kooku uh-huh. génne woo kon de kon de uh-huh. kon monsieur le président. Eh, lii. su ma la su ma la su déggee bu baax yow dafay mel ne kon yow xam nga lan mooy góomu Sénégal ndax secteur secteur yi ngi fi tudd yépp ñépp moo maase nañu xam ne benn benn secteur doxu ci nim ci war a doxee te terewul hmm. gouvernement bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite. c'est que man toujours lu may wax rek mooy ñun aussi suñu responsabilité il faut que ñu sutiyee ko c'est-à-dire ñun ñi nga xam ñun ñooy ñun ñooy voter ñun ñooy fal il faut que ñu xoolaat système bi ñuy fale il faut tamit ñun ñu jël suñu responsabilité xool ñan lañ war a fal ndax ñi nga xam ne depuis 1960 c'est le même système depuis 1960 Depuis que le Sénégal a eu son indépendance c'est le même système et tout le temps ñu ngi nekk di li espagnol di wax naan kexaat kexaat se kexaan se kexaan se maanaam di ñaxtu di ñaxtu di ñaxtu tout le temps les mêmes ñaxtu tout le temps les mêmes hommes tout le temps le même discours est-ce que léegi nag est-ce tey jii jotul ñun ñi nga xam ni mm-hmm. ñu ñooy sénégalais yi yore carte ñu fonkaat suñu carte yi mm-hmm. te def li ci war def investigation ci ñi nga xam ne ñoom ñooy postuler pour être le président de la République du Sénégal mm-hmm. je crois que ne il est temps et l'heure est grave mm-hmm. parce que on a des ressources ressources yii nga xam ne suñu borom xéewalal nañu ko mën nañ cee lijjanti Sénégal ba mu jag mën nañ cee defar sénégalais bi ba mu jag mën nañ cee kenn ku ne sénégalais bu ne war nga cee mën a gis sa bopp ba dund sa àjjana ci biir Sénégal waaye nag. Mhm. lan mooy problème bi ci yan loxo lañ koy teg monsieur le président. te yow danga tàllal sa loxo. ngir ñu teg loolu lépp ci sa loxo. lan nga fas yéene doxee nan nga fas yéene doxalee. Cheikh maa ngi lay gërëm. mais ñu bëgg rek sénégalais yi bàyyi xel lii ma leen di wax. yàlla du defal nit lu mu mënal boppam. déedéet dëgg la. yàlla. Mhm. du defal doomu aadama lu mu mënal boppam dëgg la. yàlla du la defal. Mhm. du la maanaam ngay toog ba si yàgg rek lekk gi di jóg di dugg ci biir gémmiñ yàlla du la ko defal. yàlla du def kéemaan yooyu de. bu mënee sax du ko def. li nit tële. Mhm. li nit tële rek. li nit ki mënalul boppam. la ko yàlla bind. dëgg la. li nit ki tële. Mhm. dong la ko yàlla di de mhm. bind na ko bu defee wallaahi laa yuxayyiru maa bi yow mi bëgg soppiku sa tekkin. min ko soppi lu may yow ci sa bopp yaa bëgg soppiku. dëgg la. kon yàlla du defal doomu aadama lu mu mënul boppam mhm. te loolu fekk nit ñi intériorisé wuñu ko fekk nit ñi conscient wuñu ci mhm. yëf yi du soppi mukk dëgg la nanguma ñu ñuy wax ne Senghor ak ñeneen ñi fi nekkoon ak nangam ñoo yam xam nga lu tax yamuñu ñun ci suñu bopp mooy mhm. damay wax ak démb benn baykat ca jama gaajo mhm. mu ne ma lii daal ñi fi ne ko teg ma ne ñi fi ne ñooy ñan mu ne ma état bi ma ne ko état bi mooy kan mu ne ma ñu jiite réew ma mu ne ma xanaa ma ne ko yéen kon yéenay système bi effectivement yéenay bi effectivement yéen yéenay système bi ñuy wax mhm. alors man li ma li ma bëgg ñu comprendre ko moom mhm. jàngul tari amul fenn. amul fenn. ñàkk jàng tari amul fenn. amul fenn. il faut ñun ñi comprendre ne. Mhm. tey ñi yore économie Sénégal. Mhm. mooy ñi ñu gën a ñàkkal mooy borom taay bi ngay gis. Mhm. borom borom ba ngay séem. temps beeg et cetera et cetera ñooñu ñoo Sénégal. mais naa la quatre-vingt-dix pour cent de notre économie repose sur la dëgg la informel dugg et informel dafa war a doon tey métier boo xam ne dafa mhm. ngir Sénégal demal boppam malheureusement mhm. ku tal sa bopp rek la fal mhm. ñi nga xam seen bopp ñi ku tal tawa ba tey kuñ falagu ñi ñu fi fal ñëpp dafa bëgg nga wax na kenn koo xam ne mën naa jël ñaari kiloy kemb def ko caab teg ko ci taabal teg ci bopp koñ bi jaay ko mu jàpp. amul fenn amul fenn. gisuma ko ci kenn ñoom jàkkaarloog yow. ne la yow chef yow la diaspora di ban sa doole ci Argentine. dinaa la wax ñoom mu ñuy amee xaalis. Mhm. moom mën na laa woon yoon mu amee xaalis lu may sàcc amul leneen wuruj wax lu dul dëgg rek mhm. mais malheureusement tey yéen sénégalais yooyu nekk ca euh, Argentine ah. ak suma yaay yi nekk ci euh, ca Bayti Njaay mhm. boo duggee jeune bu nekk ci dëkk bi mun a fen lool mun a lay lool. Mm-hmm. mun a wax wax ju bari lool li ñu koy yëpp wax mooy demal politique yi. parce que yow am na ci adduna. dë ah waaw alors que ñooñu ñoo la décidé. ci mm-hmm. duñu ëllëg ñun ñu nekk ci réew. xaalis yu baax yi ci réew mi. Mm-hmm. nit ñi diine yi ci réew mi këru diine yi ci réew mi. ñi nga xam ne ñoom ñoo war a tracé yoon bi ñuy jaar ngir seen teraanga ñoom. jaare ko ci liggéey. Ah. ñooñu ay politiciens la ñu war a bopp. waaw hmm. ah, waaw kon Cheikh ñun ñoo a falaat ñu bopp. ñun Sénégalais yi ñoo war a falaat ñu bopp. nañu moytu discours. nañu moytu wax bu ñu lem. Hmm. nañu moytu wax bu ñu suufee. te bàyyi xel parcours. tey sëriñ bu tey sëriñ bu bu ko joxoon ministère du commerce mu doxal ko. dala war a diplôme jàng français mhm. tak ay dàll man gëwuma lool ak ñi ma gëm mooy le culture du travail ñi mhm. ma gëm mooy ñi war a defar réew mi mooy ñi def dara ci réew mi ñi ñi leen ñu tekk li nit ñu def jàkkaar lool dëgg la li ma gëm mooy ñi war a soppi réew mi mooy yéen ñi di doxe mhm. ngeen daan fa seen doole am fa seen karaale ñëw dellu ci réew mi am fi yaakaar la ngeen investi ci réew mi na delluwaat ci seen loxo ngeen dimbali réew ci impôt mhm. am ci teranga loolu laa jàpp mooy defar réew mi mhm. kon ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon boobaak léegi ñoo fi ne ba tey mhm. day tekk rek tout simplement ñu war nañoo yeewu parce nag li nag suma moom nag suma bàyyi. Mhm. nag suma yaay suma bàyyi. vraiment nga jàkkaarloog moom. waaw muy ñëw ci yow am nii lan. nga accepté ko. Mhm. dëgg la il faut que sénégalais yi comprendre ne. Mhm. jeunes yi dañu war a jël seen part de responsabilité ci réew mi. effectivement. cheikh da nga comprendre ñi amagul ñaar fukki at ak juróom ci Sénégal. ñi amagul ñaar fukki at ak juróom Sénégal. téeméer ñoo jël juróom ñaar fukki. ñoo ëpp. c'est une dix pour cent lañu. Mhm. dama bëgg Cheikh nga xam ne ñi nga xam ne amaguñu trente cinq ans ci Sénégal. ñu amagul trente cinq ans ci Sénégal. Mhm. quatre vingt pour cent lañu de la population. dama bëgg Cheikh nga xam ne ñi ñuy jiite ñi jël décision ci réew mi ñi jox tëggal buyu réew mi. ñoom ñu ngi diggante cinquante ans. ak mhm. quatre vingt. cinquante ak quatre boo ko xool ci réew mi moom la si dix pour cent. Mm. Mhm. waaw léegi ñu ñu mënee jël ñoom en considération ñun suñu ay préoccupation mhm. ñu ñu mënee jël considération ñun suñuy bëgg-bëgg ak suñuy pas-pas ak suñu xam-xam dañ nekk parti politique yi nekk Sénégal boo leen boolee yëpp matuñu million on a plus de 300 partis politiques au Sénégal et c'est pas normal. vous avez 400 partis politiques au Sénégal. Ah ah. boo leen boolee ñun ñëpp seen ay mhm. cent de l'électorat sénégalais también. motuñu 2 pour cent de sénégal. tu mhm. alors que alors que. Sénégalais ñooy def ci vote mm-hmm. kon dañuy tànn bokkuñu fenn mm-hmm. waaye nag li am solo uh-huh. mooy ñu dem waxtaan ñu échanger ak ñoom mm-hmm. ñu changer dañuy tànne mënuma comprendre Sénégal ku koy jiite mënuloo def lenn ci réew mi man mënuma comprendre loolu Mhm. tey ñi def dara ci réew mi bu ñu leen jëloon jiite leen. Mhm. Sénégal fàtte ko. dëgg la tant Sénégal comme société bu mag. Mhm. boo xam du wut intérêt. wutu philosophie ñëwal perte yi. philosophie ñëwaluñu perte yi. situation bi ñu nekk rek lañ. dëgg li ñu xaalis bariwul. soxla yi bariwul. te mm-hmm. ñoom ñi ñu koy féetal. Mm-hmm. waaw mooy loolu de budget. loo moo may indi ci rek ma dellu siwaat ci ci ci ci maanaam fa nit yi nga xam ne leader yi yi yi war a choisir ndax ni muy mm-hmm. jëf di demee Sénégal nii muy doxee nga xam ne benn façon la changé wul yow rëyal làmmiñ Sénégal rëyal làmmiñ ah, am nekkal ci média yi am hmm. di xaste aka wax lu ñaaw aka wax loo xam hmm. ne gëmoo dara te li gën a garaaw léegi Sénégal mooy nit ki dafay taxaw jàkkaarloog ak télévision jàkkaarloog ak population sénégalaise bi yépp di wax lu dul dëgg loo xam ne moom ci boppam da koy gëm xam nga foofu hmm. lañu yegg ci stade boobu lañu yegg léegi te c'est très grave te politiciens yi nga xam ne man dama bokk ci ñi nga xam ne dañoo gëm ne du ñii ñoo ñuy defaral suñu réew mi franchement du ñii tey jii liñ yaakaar ci Sénégal ak fa nga xam ne fa lañ war a mm-hmm. yegg Sénégal ndax Sénégal man damay jàpp ne toujours li may wax suma gars yi dama leen wax ne Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne moo war a nekk ci kaw àdduna bi ndax xam nga lu tax ma wax loolu fan laa ko teg mooy dañu am mm-hmm. tëslaay dañu am ay magu diine yu mhm. liggéeyal yàlla dañu am ay magu diine yu am ngërëmal yàlla te lépp mhm. yàlla la nag États-Unis mhm. noonu muy doxee fi ñu toll nekk nekk première puissance mondiale loolu yàllaa leen ko defal ci seen góorgóorlu nag waaye ñoom fi fu bu amuñu tëslaayu liggéeyal yàlla ba yàlla defal leen ko yàllaa leen ko defal ci seen coobere mais ñun dañu am base ñun dañu am ay mag ñoo xam ne dañoo liggéeyal yàlla ba bu ne allahuma yàlla wuy leen ñun donc mhm. ñun am nañu am nañ cëslaay boo xam ne buñ ci sukkandikoo jël seeni doctrine mhm. toujours li may wax mooy loolu nañ jël doctrine suñu mag ñu baax ñi cheikhul xadim suñu mag ñu baax ñi maam alaaji malik seen doctrine bi mhm. mais loolu nañuy yoree réew pour pourquoi ñu bëgg jël depuis depuis l'indépendance ba ci constitution Sénégal bi sax ni mu demee nga gis ne dañoo jël yàlla teg fee daan ne Sénégal état laïque te boo xoolee quatre vingt quinze pour cent mhm. wala quatre vingt dix sept pour cent des Sénégalais sont musulmans ñu ye ñu nangu mhm. ñu nangu constitution ñu tepp yàlla teg fee mais loolu. yow jàpp nga ne Sénégal boobu yow jàpp nga ne yow di nga ko mën a changer sëriñ bu euh, monsieur le président jàpp nga ne yow tey jii buñ demee ba ndax xam naa ne ni nga ma waxee te ku toog di déglu xam na ne yaa ngi aspirer pour nekk le président de la république ci yàlla na ko yàlla mottali waaye tey jii yow est-ce que tey jii boo boo demee ba jot ca loolo doctrinu Cheikhul Khadim doctrinu maam El Hadj Malick ci al xalifa xalaaji Ibrahima Niass maam Baye est-ce que doctrine boobu ndax man damaa jàpp ne doctrine boobu kese moo mën a génn Sénégal teg ko sur le sommet des pays man boobu doctrine laa gëm gëmuma beneen gëmuma constitution bi gëmuma ni ñun su bàyyi Papa France moom moo ñuy développer suñu réew malheureusement suñu njiit yi ndeysaan dañoom dem jébbalu ji foofu et c'est ça problème principal le problème fondamental du ah, Sénégal c'est ça est-ce que jàpp nga ne. alors jàpp nga ne tey jii yow jàpp taxaw nga temm ngir indi doctrine boobu ak nan nga ko fas yéene inc inculper sénégalais yi parce que du yomb nag il faut nga xam ne du yomb. alors alors maa ngi maa ngi lay gërëm ci euh, question bi. dama hmm. bëgg d'abord rek ñu camper le débat. Hmm. Euh, xoolal foofu nga nekk di Argentine. yéen a ngi bàyyi Sénégal daw Argentine di wuti teraanga moonte li ñu am ñun Argentine amul xaaj bi ñun am nañu or am nañu zircon am nañu phosphate am nañu pétrole am nañu gaz am nañu jën yu doy effectivement am nañu suuf su doy am nañu plage am nañu ndox mu doy maanaam liy tax nit nekk ci teraanga lépp. Mhm. ñun am nañ ko. effectivement am lépp ba noppi ñàkk lépp. effectivement am lépp ba noppi noppi ndóol lool. dañoo dañoo ñeneen di ñëw di jëriñoo suñu alal. danoo toog ci or di jël di yóbbu. dama lay wax rek benn exemple. xoolal marbre Sénégal ñaata lay dugal ci marbre. Mhm. ci ay conteneur ci Sénégal par at. Oh. kenn xamul nu mu toll. moonte marbre bi ñu am ñun Kédougou 1974 lañ ko commencé woon exploité. machine ya ko exploité caro yiñ ci njëkk génne ci marbre dañu ko def palais de la république. lenn li ñu dem def ko ci Zawiya Alhaji Malick bi nga xam ne moom moo nekk Ndakaaru. boobaag léegi mhm. machine ya kenn laalatu ko caro ba kenn exploité wu ko. Mhm. li ñu jàpp wala ñi ñu jiite li ñu jàpp. mooy naka la ñu mun a def mm. ba soññ nit ñi ñuy dem di jëggaani bitim réew di importer ji uh-huh. la ñuy importer bu ñu ko indee ñu fay douane dama bëgg nga comprendre ne fi nekk mm-hmm. réew douane ma nga ca ëpp doole mm-hmm. réew moomu ci nasax la jëm da ngay dem France mm-hmm. wala nga dem Amérique wala nga dem Italie beneen réew bu mu doon boo jàkkaarloo ak douanier aéroport ngay jàkkaarloo moom wala frontière ba ci fii ñu nekk Argentine ba ci fii ñu nekk Argentine. mën nga fee jógee dugg fii. dañoo bokk daanaka ci li nga xam ne li doxal réew mi la. Mhm. fii douane mu ngi am doole ci biir réew. Mhm. jàppal ne réew moomu nërmel na. Mhm. fii mu ngi jouer les grands ci réew. jàppal ne réew moomu bokkul ci réew yi nga xam ne ay réew yu développé la. jàppal ne réew moomu bokkul ci réew yi nga xam ne tegu na ci yoon. bi nga xam ne moom la ñuy wut ñun ñëpp. kon li am solo. Mhm. mooy seet naka la ñu mun a def. Mhm. ba lii lépp ñuy yóotu. Mhm. ko euh, doxal. mais jaare ko ci lépp lu ñu mënul defal suñu réew. lépp lu ñu mënul am ñun waa Sénégal ci suñu biir réew. soxlawul ñu koy jëggaani bitim réew. am na réewu Corée loolu moo ko développé. Uh-huh. réewu Corée 1960 ñun bi ñuy am indépendance. ñun ñoo rawoon réewu Corée. Mm-hmm. alalu réew ma boo ko doon jël di ko séddale kenn ku nekk ci réew ma daanaka six cent mille la doon am. Uh-huh. ñun Sénégal ñu nit ñu am à près six cent treize mille. Mm-hmm. boo doon séddale alalu réew mi en mille neuf cent soixante. Ah, mm-hmm. mais tey waa Corée boo doon séddale seen alal ku nekk am na vingt deux millions. Uh-huh. ñun Sénégal ñu ngi ci six cent cinquante trois mille francs. Oh, doon séddale alalu mm, mais kon nga xam ne. ñun avancé wuñu ah loolu nag mooy li ma wax sànq ci gëm sa bopp. Mhm. li tax loolu mën a soppiku. Mhm. mooy dellu ci njàngale mag ñu baax. dëgg te loolu dama la ci jox rek benn exemple bu gàtt. xoolal Touba. Mhm. Touba amul usine. Touba amul formel. Touba amul industrie. Touba amul société yu mag a mag a mag. waaye Touba mooy la deuxième capital économique du Sénégal économique du Sénégal. waral loolu. et la doctrine. pas-pasu doomu aadama bi rek. lan moo waral loolu. Mhm. njàngaleem Cheikhul Qadim. Mhm. jaare ko ci la Matlabul Fawzayni. liggéey jaamu yàlla. kenn ku nekk ci nit ña nekk ca Touba ak ña ca Jokko xam nañu ne. Mhm. liggéey da leen a war te dañu war tiim def seen tiim kattan. ba la am ci seenug liggéey mu ëpp lool seeni soxla uh-huh. xit ma daal di dugg hmm. mais kon loolu dafa jaadu ñu jàngal suñu doom yi effectivement dama am ci benn waxtaan ma ne leen université mm-hmm. dama gis étudiants yi bu ñu grévé nekk di toj kaar yi mm-hmm. génn ci mbedd mi xeex mm-hmm. ne mais ñooñu parce que kenn jàngalu leen kunkaati man dëgg la mais bu ñu jàngoon kunkaati man. <laughs> vraiment sëñ bi wax métit yi nga xam ne war nga koo muñ. muñ ngir la ngay mutu mais ñooñu du ñu génn. dëgg toj ay kaar. Mm-hmm. moo tax ñun ci suñu programme gëm sa bopp. Mm-hmm. ñu ne enseignement njàngalem mag ñi. Mm-hmm. dafa jaar ñu dugal ko ci biir. enseignement cursus scolaire. histoire mag ñi dañ koy dugal ci biir cursus scolaire. waaye. njàngaleem làkku réew mi mm-hmm. dafa jaadu ñu dugal ko ci li nga xam ne moom mooy làkku réew mi mm-hmm. bu ñu taxaw naan ñu tubaab yi parce que tubaab yoonam nekkul ci li nga xam ne ñun moom la ñuy def Sénégal mm-hmm. nañu nangu ne ñun ñoo ko bëgg ci waaw waaw ñoo ko bëgg ñoo ko nangu ca loolee ñoom it lañuy seetaan bu ca seen intérêt nekkee ñu ne tekk di ñu ci seetaan kon jaadu na comme ni ma ko waxee ci point six ci suñu programme muy éducation ak enseignement. Uh-huh. ñu comprendre ne lii defar Sénégal. Uh-huh. bokk na ci fexe ba njàng mi ñoŋ. Hmm. njàng mi ñu méngale ko ak soxlay réew mi. Uh-huh. parce que jàng ba am bac nekk université. def deuxième année wala troisième année boo cartouché ñu dàq la mënoo dara bind ak liir nga yam nga mën yaag hmm. élèves sem de yéen yam ñu ne njàng mi nañu ko méngale ak soxlay këru liggéey liggéeyukaay yi nekk ci réew mi. jaarale ko ci technologie. jaaree ko ci science ba nit ñi xam ne adduna dox na te am na loo xam ne bu ñu ci buggee yegg mhm. faw ñu nit ñu nangu lingoog jamono mhm. mooy daara yi ñu bàyyi leen xel mhm. daara yi ñu organiser waat leen daara yi ñu boole leen ci biir enseignement bu Sénégal uh-huh. fexe bi ñi nga xam ne ñooy taxawali daara ñu teg ci ay conditions yoo xam ne kenn ku nekk du nu mu la neexee noonu muy jógee taxawal daara waaye mm-hmm. day fekk tamit gouvernement bi dugal loxoom ci daara ngir mm-hmm. jàppale daara donc nañu jàpp ne mm-hmm. liy soppi réew mi jàngale mag ñu baax ñi daf ci am solo lool lool lool lool gis nga euh, Serigne Cheikh uh-huh. Al Maktoum dama ko dégg ci ay waxtaanam mu naan kuy dunde politique doo gor doo gor waaye yemu ci dane kuy dunde arxuraan it doo gor dëgg la ñu ne ko sëñ bi lu ci jublu mu ne yooyu yi yëpp lu nit war def ci dundam la da koo war waaye li tax nit am teranga du lenn lu mooy liggéey liggéey dong moom mooy am mooy tax nit am teranga kon jàppal ne Cheikh yéene yi daal bari na mais li ci ëpp ci ñun la dépendre ñun sénégalais président nangu naa bu baax ci loolu loolu li nga wax waaye dafa mel ne suñ déggee message bi ngay véhiculer mooy ñu gën a gëm Sénégal ñu gën a kenn ku ne gën a gëmaat sa bopp xam ne réew mi kenn ku ne na jàpp moom moo ko moomal boppam waaye réew mi day président lu naqaree defar la xam nga lu tax mm-hmm. ndax tey jii ñépp dañoo tiit ndax su ma gisee un étudiant ah qui a un bac plus 5 muy dem di postuler ci pour pour nekk un comédien man est ce Sénégal là m'inquiète un je te parle en connaissance de cause un Sénégalais un étudiant qui est à l'université qui a un bac plus cinq est c'est pas une personne non ay nit la ay étudiants yu bari ñu dem di postuler pour être des comédiens boobu Sénégal président vous avez am nga tâche bu rëy ci li nga bëgg faw nga am ay cëslaay fow nga am ñu gëm lii sa doctrine bi faw nga am ñu ko gëm ngir mën la accompagner parce que bu ñu demee ba yegg ci étudiant sénégalais bëgg a bàyyi la mu la mu la mu trajectoire am boobu yi bëgg a nekk comédien nga xam ne boo génnul ci télé yi defoo théâtre gis nga li taf-taf comme li ñuy wax def génn def benn série nga gis mu daal di am oto ami kër kii nekk ci woy bi kii na ci dem nañ ba ñi nga xam ne ay ay ay ay ay ay lu mel ni ay ay ay xale yi ñuy bë ni ñu koy waxeeti euh, Ouzin Keita ay ay beneen booy boobu dem bañ leen di invité ci télévision ñuy am des des milliers de de de vues mais ñun ban Sénégal lañu war a am ñun ban Sénégal lañ bëgg man damaa tiit et dama dama am lu ma naqari ci sama xol ndax man dama gëm Sénégal te dama bëgg Sénégal su ma gisee ñuy favoriser ñooñu su ma gisee ñu jël ñooñ teg leen au devant de la scène je suis inquiet. et je mm-hmm. suis meurtri. Euh, euh, alors euh, xam nga xam nga pour man. il faut ñu ñuy ñuy relativiser. Mhm. Euh, gis nga réew moom nga nekk muy Argentine muy Brésil muy Amérique. Uh-huh. ñi nekk dans le showbiz. Mhm. ñoom euh, ñoom lañu gën a bàyyi xel. ñoom mooy ñi nga xam ne. Mhm. ñoom la nit ñi di seetaan. je crois que loolu bu ñu duggee ci logique comparative rek. dafay indi problème. Euh, un étudiant bac plus cinq Euh, dugg dans l'industrie cinématographique wala mu am yéene bi pour man loolu passion la mhm. maintenant il faut comprendre qu'une passion c'est pas un métier ah, une passion c'est pas un profe une profession mhm. nit mun ngaa jàng am sa xam-xam ci nangam quelqu'un comme Phil Collins mhm. mais c'est un ingénieur agronome et cetera et cetera bari na yeneen yoo xam ne mën nañ ci joxe exemple mais li am solo mooy ñu bañ di utiliser ay secteurs mhm. pour doyadal une société wala di ko utiliser mhm. ngir mun a tirer jeunesse bi vers loolu mhm. ngir ñu bàyyi les vrais problèmes de l'heure xam nga damay wax saa su ne rek mais dama gis benn ci réseaux sociaux yi ñu may wan benn jeune ne day jaay kaani dafa saam kaani di ko jaay. Hmm. ma ne leen jeune bu am euh, mas nekk en master 2 uh-huh. di jaay kaani teg ko ci taabal. Hmm. ma ne leen kooku amul valeur ajoutée bu mu indi ci njaayum kaani. Hmm. master 2 dafa war a tax nga am value added maanaam valeur ajoutée buy tax kaani googu dootoo ko sàmm. da koy confi def ko confiture def ko ci emballage bu baax. Mhm. wut sa circuit de distribution créer la demande satisfaire demande boobu. Mhm. créer le besoin. Mhm. satisfaire besoin boobu ma ci master 2 ba am. loolu leen ko ci jàngal xam nga nag aussi malheureusement cher. dañu nekk ci réew moo xam ne nguur gi ak école yi dañuy nekk ci mbirum naxaate. xam nga naxaate bi mooy. milliards yi lay Wade dugal ci emploi des jeunes Macky Sall def na lu ñu toll waa léegi dama bëgg ñu wax ma ban ban efficacité la am amul benn efficacité parce que gisuñu ci résultat uh-huh. ay milliards la yu ñuy dugal jox ko jeunes yi distribuer ko dans des conditions nébuleuses yoo xam ne nit ñi mënuñu la wax sax nax la ñu distribuer xaalis boobu Au finish, tu te rends compte que c'est les mêmes politiques développées mm-hmm. te amalul nit ñi benn njariñ mm-hmm. man damay wax saa su ne ne Sénégal mm-hmm. chômage biñ la fi wax ndax wax ma mosul ngaa gis booy chômeur bawal bawal est que mos nga gis ci Sénégal chômeuru pour le Fouta waaw mais dañ ma wax Sénégal ñan ñooy chômer ñiy chômer mhm. mooy ñi nga xam ne dañu nekk victime du système mhm. ñu leen di gëm doone pour nga tekki da ngay xaar buur ñëw pour nga tekki xaaral ñu jox la mhm. da ngay ko xam ne nga gis koo xam ne danaan damay xaar liggéey liggéey boo koy xaar doo ko gis yàlla am na fulla joo xam ne comme li ma la wax sànq lépp loo mënal sa bopp yàlla du la ko defal li nga tële dong la la yàlla di defal kon yow mi nga xam ne da war a wut liggéey boo toogee di xaar liggéey yàlla am na ful la joo xam ne liggéey boobu ngay xaar bu la ko jox mu fi léegi sabab lu loo dem wutali ko sabab kon bokkuma ci ñi nga xam ne dañu jàpp ne liggéey état moo ko war a joxe waaye état war na créer condition yuy tax nit ku nekk ci réew mi bu jógee di ñaq di jariñu mm-hmm. la muy liggéey mën a doon teraanga ci moom lu tax tey suñu uude yi lu tax tey suñu uude yi amuñu ci ay milliardaire ñaata dàll ñooy jóge Chine di dugg Sénégal suñu tailleur yi lu tax amuñu ci ay milliardaire ñaata yére la ñuy jële bitim réew di ko dugal Sénégal waaw léegi suñu coiffeuse yi. Mhm. ñu yor seeni salon de coiffure ni ñu amee ay milliardaire bu fekkee ne xale yu jigéen ñëpp dañuy këppoo ay ay perruque. ay waaw cheveux cheveux waaw. naturel xaw ma. Mhm. dama bëgg ñu comprendre ne li defar Sénégal ay mbir yu tuuti la. mais ça demande des décisions courageuses. Mhm. ak ay nit yu xam li ñuy liggéey dama lay jox benn exemple Cheikh. nee nañu mool yi ñu ngi dajale jël seeni gaal di dem Espagne mm-hmm. waaw léegi bu fekkee ne yow am nga trent ans sa baay am soixante ans boo wàccee giti nga dajeeg moom ci tefes gi ah. sa baay di wut nar mm-hmm. nar mooy li ñu leen di jox jën yi leen di may bu bu bu bu gaal yi teeree mm-hmm. waaw nga gis sa baay di wuti nar ci ci ci tefes gi yow jógee giti wala jógee maare ñëw wàcc Mm-hmm. wóor na la ne yow doo am juróomi junni ndax géej gi amul jën waaw jeune boobu est-ce que moom dana toog di xaar am soixante ans ngir terminer comme baayam amee jom du ko xaar moo tax moo tax ma ne il faut se mettre à la place de ces jeunes là mm-hmm. nga jël géeju Sénégal nga jaay ko mm-hmm. ñu ne la vingt et un bateau yu Espagne danañu ñëw jël suñu jën ah. yóbbu ko Espagne waaw léegi jeune bi nga xam ne dafa yoroon gaalam di dem di dugg ci géej waa jeune boobu moom du taal gaalam topp bato yi nga xam ne ñoo yab jën yi yóbbu ko seen dëkk. Ah, bu amee fulla loolu lay. bu amee fulla kay dama bëgg ñu comprendre. Mm-hmm. dafa am détail yu am solo. Mm-hmm. tey union européenne. un milliard huit cent la ñuy jox Sénégal at mu nekk. Uh-huh. un milliard huit cent mille francs CFA. Mm-hmm. la ñuy jox Sénégal at mu nekk ñu autoriser leen ñu ñëw di napp suñuy géej. xam nga ñaata gaal ñoo immatriculé wu fii ci Sénégal vingt six mille six cinq cent gaal vingt six mille cinq cent gaal la ñu immatriculé Sénégal mhm. gaal bu ci nekk bu ñu leen tegoon taxe ne leen da ngeen di am licence mhm. trois cent cinquante mille francs ngir ngeen dugg ci géej gi uh-huh. ñoom ba ñoom nappkatu Sénégal rek dinañu indil état wu Sénégal mhm. at mu nekk uh-huh. neuf milliards deux cent et quelques au lieu de un milliard yi leen Union européenne di jox. Mhm. ñoom kon Sénégal bu ñu amoon ay nit ñu am xel ak xalaat. Mhm. toog fa ñu war a toog ñoom xam nañu ni ñuy def ba géej gi ñu liggéey ci xaalis te duñu ko jaay. Mhm. waa Union européenne. mais président. alors waaye président. xam nga yow xam nga yow. nekkoo nekkoo ci ci ci les destinées du Sénégal. te yow yaa ngi xam loolu. Mhm. ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk mhm. ci ci nguur gi. ñoo la gën a xam li mhm. ngay wax nii ni nga ko xamee noonu lañ ko xamee. non non waaye je ma ko gën a xam xam nga lu tax mënuñu ma ko gën a xam. yow mii ku la jox million xam nga nooy def liggéey ko mu nekk téeméeri million. ku la jox un milliard xam nga nooy liggéeyee ba mu nekk fukki milliard. baal baal politicien boo jox un milliard. politicien boo jox un milliard boo defee at day soxlawaat milliard. ba baal ma. ana ana ñu fi nekkoon jamonoy Abdou Diouf di di di di di di fooye suñu réew mi. ana ñu jamonoy Ablaye Wade ñi fi yoroon xaalis. Mm-hmm. jamonoy Ablaye Wade ñi fi yoroon xaalis di fooye réew mi ana ñu. waaye dama lay moonte yoroon nañu xaalis. moonte yoroon nañu xaalis waaye bu ma nga xam ne. Mm-hmm. yow expérience bi nga am. ci liggéey bi ngeen def mm-hmm. ñàkk ci jariñu ci mm-hmm. expérience boobu daf lay jariñ mm-hmm. xam nga euh, sëñ Abdoulaye uh-huh. Mbàkke mu baax bi Abdou Diouf dafa dem ci uh-huh. ne ko ci waxtaan sëñ ne ko euh, président dama bëgg nga wax ma naka la ñuy yoree réew parce que yor réew war naa jafe mu ne ko ah jafewul de waaye yow mii sax de mën ngaa yor réew Mbàkke mhm. waa léegi yow yorinu réew Mbàkke noo ko xalaate mhm. sëñ Abdoulaat ne ko mhm. li jàpp daal ci yorinu réew njiit la day am yërmande ca ñamu jiite fu mu seen njariñ xar tànk tubayam dem wuti ko indil ñamu jiite te lu ñu cay séddale moom na ca nangu gën a tuutle. est-ce que. Mm-hmm. waaw njàngale mun naa raw lool. déedéet. ma wax la ne la. Mm-hmm. man ak ñoom du ñu benn xam nga lu tax. Uh-huh. man saa su ma xëyee damay jóg dem liggéeyi. Uh-huh. gën taa néew naa juróom benn téeméeri doomu aadama yoo xam ne. Mm-hmm. ma leen di fay weer wu dee nekk. macha allah musuma liggéey ci nguur musuma ànd ak nguur musuma am salaire nguur musuma am marché nguur. Mhm. gis nga keroog bi may dem Seneweb dama jël ay crédits fiscaux. Uh-huh. kayitu impôt bi wane samay société ñu dara. impôt naa naa muy kayit bu jóge ci ñoom ma brandir foo wane ko ne leen yoreelu ma leen dara. seetaan moo tax bi ma njëkk jóg ne dama contre nguur gi ci ni ñu koy doxalee. Uh-huh. nit ñi comprendre ñu ñu bari ñu ne. ay bonte boo demee homme d'affaires bu song nguur mook nguur ñoo bokk mbuus ma ne leen jum ngeen mhm. man damay ba nekk daaru mhm. doon koo xam ne du ma wax lenn lu ma gëmul li ma gëm mooy li soppi réew mi ak li defar réew mi kon mhm. man duma nekk naa la compromission jàppal ne dama doon un homme d'affaires uh-huh. liggéeyal sama bopp ba suñu borom jox ma teraanga uh-huh. la ma suñu borom jox ci teraanga moo wëlbatiku di ko bokk ak askan wi uh-huh. la def te mu néew lool ci askan wi mm-hmm. loolu laa bëgg fexe yaatal ko ba askan wi mën caa jot ba ku ne la nga ca war a jot ga jot ko wax naa la tànk ne la uh-huh. nanguwuma di liggéey di torox mm-hmm. nanguwuma di liggéey di waakaana damaa doonoon góor mm-hmm. góorgóorlu ba doonub ba doon bëgg jël gone yi teg ci yoon ngir ñoom it ñu doon ay njiit. Mhm. loolu ku def dara moo ko mën. dëgg diggante am diggante Abdoulaye Wade Abdou Diouf ba ci Macky Sall. amu ci kenn ku musa jël ñetti nit ci réew mi di leen liggéey liggéeyloo. alors loolu bu fekkee ne amuloo xam-xam bi. dafa bëgg ñu ni du mbiri diplôme. dëgg la bu doon diplôme dong moom mooy tax réew mi dox. Mhm. kon prof économie yi nekk université yëpp ay milliardaire la ñuy mmh. doon moodu moodu bu ci nekk mun naa fay prof économie bu nekk université ah, effectivement kon il faut nit ñi décomplexé mmh. dëgg la loolu laa gëm monsieur le président xaaral ma ma ma ma mmh. ma dugal ma dugal góora muy nga xam ne moom mooy directeur généralu Touba TV bi moom it mel na ne am na ay laaj yu la bëgg a laaj góora allez-y jërëjëf monsieur le président Bougane ñu ngi lay euh, nuyu di la gërëm bu baax. ci jàppandal gi. itte ji nga xam ne itam. jërëjëf nga ko bi xam nañu sa sa tolluwaay sa ñàkk jot. ay itam bi nga accordé émission bi itte la joo xam ne daf ko jox diaspora bi bàyyi leen xel bu baax. dégg nañu itam waxtaan. macha sa sa yéene ci réew senegal ak fi nga ko bëgg a yóbbu ci ëllëgëm. Euh, xam naa li may laaj rek mooy gis nañu fi ñu mel ni yow bu ma dee tudd ñu mel ni yow mooy <coughs> jiite nañu ay parti donte ne yow ma gëm sa bopp nga jiite ñoo xam ni tey bu ñu leen dégloo même discours yi lañu ñu daan discours euh, tey ni ñu koy analyser mooy seen waxi démb dafa nuróowul ak seen jëf mën nañ ci tudd euh, ki nga xam ne moom moo di Idrissa Seck xam naa sax question li may wax mooy yow naka lañ lay utale ak ñooñu bu loolu jàllee itam naka nga gisee delluwaatu bu njiitu réew ki nga xam moom Idriss Seck ci ci gouvernement bu Sénégal. naa ngi lay sant bu baax góora mm-hmm. euh, li ma bëgg ñu bàyyi ko xel d'abord mm-hmm. mooy li ma wax sànq motivation yi du benn mm-hmm. ñooñu ñi ngi jiite ak ñi leen wax ñëpp ku ci nekk la mu am bu ñàkk yow la ko jëlee man li ma suñu borom jox suma ñàkk man moo ma ko jox donc mun ñoo yam il faut pas ñuy tëkkale loo xam ne bokk mais mais mais damay wax yow rek rek dem nga ànd ko coali ak coalisé ak ak Idrissa absolument waaw absolument waaw ànd naa ak Idrissa Seck uh-huh. parce que taxoon a jóg mm-hmm. mooy jële fi kii fi nekk man doon njiitu réewu Sénégal mm-hmm. ba ñu demee ba ci biir la ca am soxlawul ñu ci delluwaat kon ne xam na mbiri pare na mu dem effectivement naa la moi je suis un homme d'affaires. Mmh. je fais toujours un pari gagnant. su ma jàppoon ne jamono jooju moom moo fi jëlee Macky Sall. Mhm. Idrissa Seck la woon. Mhm. et la nga xam ne moom la ñu décider ñun ci assemblée général mhm. ñëpp ñëw toog ñu jël décision collégiale. moo doon jàppale Idrissa Seck bañ koy jàppale aussi. lakkuñu essence am dawaluñu otoom mhm. defuñu ci lenn suñu xaalis la ñu utiliser mhm. suñuy oto la ñu dawal campagnal ko mhm. yàlla def mu jël deuxième ça veut dire quoi tey bu ñu doon dem deuxième tour uh-huh. fas wara jàpp nañu ne mooy fasu gagnant bi te fas waru la ñu miser donc encore une fois lu ñuy réccu amu ci mën nañoo am am nag mbetteel mhm. ci ni mbir yi demee mhm. waaye dama bëgg nga bàyyi mhm. la amul danger am na wóolu ma la nit amul danger ndax baax a amul danger ndax kala ko wax xamu waaye wóolu ma la moo garaaw ndax wóoluutuma la. mbay am na lu ngeen seq. ba mu indi lii. waa baaxul juróom-ñetti at waaye xëy jàkkaarloog nit ki ne la ma waxoon baaxul tey baax na. Ah. nee la man mu ko jiite. dama ne man murit laa dama bàyyi xel waxu sëñ Abdou Lahad Dia. Mhm. bi doomu aadama boo ko méngalee kàddu renam méngoowul mhm. bàyyi. la. soo amee fulla nag du ma wax ci nit lu bon mhm. du xas nit mhm. du wax ci nit lu ñu parce kenn yarewu noonu mhm. te bu ma ko defee nit ñi dana nu ma xeeb parce que moom magum jëmm la am na partem jël na décision am décision ba mu jël man ànduma ja moo tax la ma newoon jëmb yéene jama ci amoon tey jii yaa gën am yéene woowu parce que yéene bu ma amoon Sénégal dama soppat waaw boobu boobu leer na waaye dañ ciy dolliwaat mm-hmm. li nga xam ne actualité récente la ndax euh, mm-hmm. gis nañu dañu bëgg rek nga defal ci benn jàngat bu gaaw ci li nga xam ne tey jii mm-hmm. Ousmane Sonko doon na ko doon na ko doon na ko prôné ndax tey jii buñ demee ba nga xam ne juboole na ku mel ne eh, Barthélemy Diaz nga xam ne moom mel na ne am na ci système bu mu ne te mu ngi koy doxal mu jubóole ko ak maître Moustapha Diop l'ex PDG Dakar Dem Dikk moom ay accusation ñoo doxoon ñoom ñaar ci seen diggante ndax kii dane ko terrain bi nga jaay parti au pouvoir muy APR waruloo ko jaay terrain bi état wu Sénégal moo ko moom mu yëkkati ko nee na da koo jaay te Sénégalais yu bëri sax gëmuñu da koo jaay ndax mënul indi maanaam mënul indi preuve xaalis baa ngi nii wala chèque baa ngi nii wala virement baa ngi nii kon Sénégalais li ñu xam rek mooy wax nañu turu jaay waaye xam nañ ne du mbirum jaay ndax mbirum jaay doxul ci digganteem ak parti APR ndax parti APR ñoo ko teg fa mu ne mën naa ko waxee noonu parce que le président du parti APR est le président de la République du Sénégal kon parti APR moo ko fa teg Barthélemy Diaz leeral gi mu bëggoon ñu comme yëf yi demoon na ba nekk ci tribunal est ce yow sa jàngat est ce que gënul woon Ousmane lu mel ni Ousmane Sonko mu maandu ci loolu ndax dossier bu nekk boo xam ne il pendant la justice moom mu indi ay juboole ba dem ba wax ne def nañ ko ci comme comme à l'africaine est ce que est ce que tey jii yow loo loolu yow sax monsieur le président ban gis nga am ci ci ci ci façon juboo boobu. ndax man su man su sama sago ndax bu doon sago sénégalais yëpp sax laay wax dinañ yegg ci tribunal ndax sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo moom état ñoom ñooy état ñu xam seen suuf si kat ci yan fànn lañ ko joxe dañ koo jaay dañ koo maye dañ koo loué wala lu mu mën a doon baaxoon na sénégalais yi xam dëgg bi yow lan moo ci sa gis-gis ci jubóole boobu. ah Aram ah, maa gërëm boo xoolee sa question bi daanaka def nga trois minutes mais ci trois minutes da nga poser question wax xalaat wax sa wax na nga bëgg ma orienté ko man sama réponse euh, fukki at yi euh, expérience ah. li ma li ma bëgg ñu comprendre ko ci. Euh, réew. Uh-huh. dangay xool réewu France. Uh-huh. ka nekkoon président la république. Uh-huh. tey ñu ngi koy topp ci justice. ngir yu ñu njort ne def na ko. dëgg dëgg. président ba woon idem. def na ay mbir yu ñu topp mais malheureusement ñun Sénégal. yéene bi ñu am wala ni ñu ni ñu muune président de la république ak mm-hmm. nañu ko mooñee dañu jël président de la république def ko koo xam ne mm-hmm. ginnaaw yàlla moom mm-hmm. kon lépp loo xam ne aju na ci moom wala ci njabootam wala ci moom direct à la limite mënoo ko ci topp uh-huh. kon ay mbir la yoo xam ne dañ ko war a changer soppi ko maintenant li am solo mooy askan bi askan bi fan la ko teg hmm. yéene bu nekk dox bu nekk tànk bu nekk xalaat bu nekk hmm. mais askan dañu am yéene xam dañu am yéene gëstu hmm. dañu am yéene ne wax ne seen alal bii nii la ko ñu yore nii la ko ñu jëfandikoo ci yoon yi ko ñuy jaarale mm-hmm. alors li am solo ci sama gis-gis ma uh-huh. mooy yàgg yàgg yàgg lépp lu ci lënt luy mën a feeñ mm-hmm. ci mbiru euh, Dakar dem dikk boobu nga xam ne wax nga ko mm-hmm. li ma gëmit ci suma suma xalaat bu sell bu set bu ma jàpp uh-huh. euh, yéene xëy na lépp lañ ci am ba dox ca tànku jàmm mm-hmm. waaye xëy na luy gàttal wala luy lëndëmal xel mm-hmm. mm-hmm. xel la euh, indi naatable ci xel yi li am solo nag mooy li wax njariñ li mooy sénégalais Sénégal ci boppam lépp luy alalu Sénégal wala njariñu Sénégal dañ ko war a jiital lépp loolu lu ñu war a def la. dëgg de parler xam nga wax nga sànq ci biir kàddu gi ma dellu si. Uh-huh. ne la man nanguwuma li ñuy attribuer système parce que système ñun la. Uh-huh. dama ñu wax ma lan mooy système. Uh-huh. lan mooy système. man bugaan musuma am salaire nguur musuma liggéey ci nguur musuma pété nguur musuma am këru nguur nguur musuma jox litre carburant waaw mhm. ah, man est-ce que bokk naa ci mi nga xam ne moom bokkoon na ci présidentielle prof d'université la ci privé bi mhm. waaw système Moustapha Guirassy nga xam ne euh, moo jiite IAM mhm. nekk dans le privé waaw kooku est-ce mën nañ ko boole ci système. non waaw est que mën nañu wax ci ñëpp ci langue politique ne ñoom bokkuñu ci système bi. Hmm. nee naa leen ñu bàyyi hmm. xel ne discours du mooy yore réew. Hmm. parcours la réew. parcours mooy yore réew du discours. kon nañu bàyyi xel ci parcours yi te moytu discours bi. président ñu ngi lay ñu lay gërëm xam naa dootul yàgg dara ñu bàyyi la ndax yaa ngi ci yeneen yitte. Mm-hmm. Euh, xam naa dañuy ñëw rek ci diaspora bi ñu leen di wooyee def naa quatorzième région Sénégal mm-hmm. ñu gis ni euh, ku tudd Sénégal mm-hmm. wax développement tuuti da nga tudd diaspora bi ci noo xamee ni itam ni la ñu taxaw réewu Sénégal di service Sénégal lu bëri en tant que mouvement bi nga yore nga xam ne itam li sa yéene mooy jël réew mu senegal lan mooy sa programme ci diaspora bi. ci lu yàggul sax gis nañ ko def benn vidéo di ndokkeel ñi nga xam ni dañ leen doon faat du mujj fenn. Mhm. diaspora bi du dund problème yu bari mën nañ jël fii Argentine ñu nekk. ci ba ci Brésil 4000 euh, immigrés mi ngi fi tey ba nii amaguñ ambassade amaguñ benn représentant boo xam ne tey moom ñu taxawu lan mooy sa programme diaspora bi. alors maa ngi lay maa ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax xam nga euh, booy xool. Hmm. Euh, ñun les questions migratoires dañ ko. def mu nekk mbir mu am solo ci ñun parce que nee naa la man ci sama bopp mm-hmm. ci diaspora ci yëpp mm-hmm. kon nit du boppam mm-hmm. jafe-jafe yi ngeen jànkonteel bu ci nekk man Bougane Gueye jànkonteel naa lu ñu nekk yéene ju ma habité woon à un moment ba ma ne faw ma génn ma nit yéene jooju moo leen habité yéen nit ngeen dem wuti ngir am teraanga kon li ma gëm mooy ñi nekk bitim réew sénégalais fu mu mën a doon mhm. dañ ko bàyyi xam nga lu tax mhm. li dugal ci réew mi rek ne serait-ce qu'en terme de devise mhm. ginnaaw Nigéria lañu toll ëpp na junni milliard junni milliard boobu dafay impacter directement ci économie sénégal waaye tey ñun ñooñu nekk Argentine. ku ci amoon tey vingt millions ndax dugal ko Sénégal dina ko yomb. eh de balaa xam nga kenn xalaatu ko. de waa léegi lu tax Cameroun bi. Mhm. wala Congo bi moom nguuram encadré ko ba bu amee xaalis mu mun ko ci biir réewam. Mhm. waaye léegi lu tax ñun ñi ñu jiite ñu ñu koo defal. lu tax tey doomu Sénégal bu faatoo bitim réew. Mhm. ñu koy màggalal ngir néew bi ñu mën koo delloo ci Sénégal ah, lan moo war mhm. lu tax tey doomu Amérique fu faatoo ci àdduna bi mhm. ñu mën koo rapatrier aux frais mhm. de l'État du Sénégal euh, ah. de l'État euh, fédéral waaw lu tax tey amba jabaru ambassadeur yi nekk ambassadeur u Sénégal yépp ñu jox leen salaire cinq cent mille cinq cent mille jabaru ambassadeur ñu jox leen mhm. te suñuy néew suñu suñu amee néew Argentine bu ngeen dajalewul du dem du ñibbi ci Sénégal du dem waaw waaw donc moo tax ma ne man ak yéen dañoo bokk ay xalaat mhm. li ma man mooy war nañoo fexe ba doomu Sénégal seen alal bu ñu ko waree indi fii ci réew mi ñu yombalal leen ko mhm. war nañoo fexe ba alal ji nga xam ne dañ koy dugal ci réew mii mu doon lu jur lu nit mun a nekk bëtam mhm. war nañoo fexe ba doomu Sénégal bu nekk bitim réew mhm. bu fa borom yemale bakkanam dellu seen fii ci Sénégal mhm. mu doon loo xam lu état di dugal loxoom la à travers les ambassades et les consulats uh-huh. ngir ñu mën leen a dellu ci loo xam ne lu ma tenir à cœur la et loolu booy xool mu ngi programme dinaa leen ko yónnee uh-huh. par WhatsApp ñoom ñëpp autant en français qu'en wolofal. dañ ne woon dañuy def benn euh, possibilité boo xam ne. Mhm. benn politique d'encadrement boo xam ne dina tax suñu compatriotes yi ñu ñu mhm. bëggee dem bitim réew. Mhm. encadré. waaw chinois yi war a dem bitim réew bu dañ leen di encadré. Eh, bu baax sax. ba ñu dem waaw lu tax ñun Sénégal mun ñu def loolu. fii fii ma dolli la ci beneen information fii mhm. fii ñu nekk ci Amérique mhm. latine bii ngeen xam ne Argentine ak Brésil mhm. doo fi gis mukk benn ciino bu yorul magasin bu rëy a rëy buy jaay en gros wala supermarché yi nekk fii yépp ñoom ñoo ko yore te benn chino ñëwul fii ak xaalis bu war a mën a ubbi supermarché dañuy ñëw seen état. moo leen di financer. seen état xam nga loolu mm. ah. xam nga loolu. la. xam nga lan la ci jublu. Mm-hmm. dem leen bitim réew ngeen wuti. Mm-hmm. ñu encadré leen ngeen installé ah. bu ko defee ñun ñoom seen état ña fa nekk di liggéey la ñuy liggéey. Mm-hmm. danañ ko mën a exporter yóbbu ko ci réew yeneen yi. ngir mën fay am xaalis ci réew yooyu di ko delloosi ci seen réew. waaw comme kooku kon nit ku yeewu ku def business. Mhm. moo mën a xalaatee noonu. dëgg dëgg liñ fiy jaay lépp Chine la jógee. jaay ñu dara waa réew mi. lépp li am bagage ñoom la ñuy Sénégal ko jaay. Mhm. waaw moo tax ñun Sénégal nag lépp lu ñu soxla ñun bitim réew lañ koy jëlee. Ah. te pour nga dem bitim réew ngay obligé jënd devise mhm. soit euro wala dollar uh-huh. te réew ya la koy jox dañu la koy jaay dañ la xanaa nga war a dund réew yooyu ñoom seen intérêt nekkul ci ñun ñu mën a demal seen bopp suñu bopp dafay ci programme bi ma la doon wax ci mhm. wàllu diaspora mhm. gëm sa bopp dafa ne képp ku nekk bitim réew sa yéene mooy am kër Sénégal ndax ëllëg da ngay yaakaar ñibbisi dëgg la ñu ne njëkk gi nga war a am Sénégal kër bu njëkk gi nga war am Sénégal. Mhm. bépp texte boo xam ne daf caa aaju. Mhm. war nañu ko bindil kiy jënd kër ci Sénégal. Mhm. te nekk bitim réew. dëgg la xam nga loolu dana permettre nit ñi xaalis ba ñuy liggéey indi ko waaye dana permettre ñu gën leen a mun a encadrer. pour li nga xam ne moom moo di wàllu recensement. ak identification. ñu gën ci mun a taxaw. Mhm. ba saa su ne dina xam ñaata ci doomu Sénégal ñu nekk bitim réew. tey doomu Sénégal bu amee problème. Mhm. ñu ba nekk ci réew ma. mais kooku moo ko toogal Sénégal. waaw. conseiller ya nekk ci ambassade ba ñoo ko toogal Sénégal. effectivement. jaamu jaamu sénégalais yi lañ. tey ambassadeur Sénégal Argentine. Mhm. Euh, astafirullah Brésil. Brésil waaw. bu fa defee dara. Mhm. buñ fa defee dara. buñ fa defee dara mais moom jarul sax jarul gën. Mhm. liggéey bu def parce que buñ ko tegee. ndox la. bu ko deful ñun ñoo ko sant. la muy def suñu xaalis la ñu koy fay. Mhm. war nañu ñun jël ay dispositions. Mhm. pour que ña ko fa teg daal ko dindi. dëgg la kon il faut ñu comprendre ni bi ci boppam moo war a nekk au cœur du dispositif. Mhm. pour que lépp loo xam ni njariñ la ñoom ñi ñu jiite ñu dem wuti ko. pour ñu ñëwee séddale ko ñun sénégalais yi ñu am ca. te ñoom ñu gën caa néewle. dëgg la. waaye loolu loolu loolu loolu volonté boobu loolu volonté la de volonté waaw mais volonté la boo xam ne ak sacrifice waaw ma ne volonté la boo xam ne sëñ Cheikh mm-hmm. volonté la boo xam ne yàlla dafa bàyyi ci suñu loxo ñun Sénégal uh-huh. nañu bàyyi di wax naan di daa sàcc ay élection mm-hmm. nañu bàyyi di wax naan di dafa labaj ay élection dëgg la mm-hmm. li waa Touba def waa Ziguinchor def ko waa département Thiès def ko bu ko dara defoon Diourbel def ko Kaolack def ko. Mhm. wax ji weesoo na fii. dëgg nañu nañu xam décision yi ci suñu loxo la nekk ñun mhm. sénégalais yi ñooy voté tubaab voté ñu fii ci réew mi. dëgg la mu leen gis tubaab bu ñu dugg ci urne yi di voté. Mhm. élection bu amee Sénégal balaa dix-neuf heures rajo yeeg télé yëpp dana la jox résultat yi. dëgg kon na mu jarale Sénégal yi ñoom ci seen bopp jeunes yi. Mhm. sama rakk yi di jël seeni ay gaal. Mhm. ngir buti teraanga jaral leen ñu tayle seen bakkan dem Espagne. Mhm. ngir safara si ñuy dund ci réew mi na ko jaral ñi nekk ci réew mi ngir réew mi jub tegu ci yoon wa war. dëgg la. te ñu fekk ñu bañ ñoo naxati. dëgg ñu nekk ci réew da bokk ñu ñuy tuddee ay influenceurs. yéen ñi nekk gis ngeen na bitim réew di doxe mhm. kon da ngeen war a bokk ni sensibiliser sénégalais yi di leen wan ne c'est possible que Sénégal tegu ci yoon comme Argentine c'est possible que Sénégal tegu ci yoon comme Brésil mhm. c'est possible que Sénégal mel ni Amérique wala mel ni France mhm. ndax foofa ñoom dañoo jox askan wi gëdd bàyyi leen xel ndax xam nañu ne lu ñu toon ñi fay impôt ñoo leen ko def kon ñun ñii di fay ñun ñu liggéey di ñaq di jariñ comme ñun ñoo nekk ci naaj bi. Mhm. ñi nekk ci kër gi bu fekkee ne la ñu ci ñoom bu ñu bëgg defuñu ko ñun ñi nekk ci naaj bi nañu takk suñu ndigg fekk si leen ci ker gi. Mhm. dëgg la monsieur le président lii eh, hmm. sa message sa message bi jàll na te jàpp naa ne dina dégg ci noppu borom barke yi ba tax na noo ci ci turu. waa diaspora bi yépp ak ci turu télévision bu mag bi nga xam ne diaspora bi yépp moom la ñuy seetaan muy Touba TV Argentine am nañ mbégte mu rëy ak contentement bu rëy te mën nañu wax ne nag sagal nga nu ndax sa jëmm bi day xam nañ ne yow de danga bàyyi lu bari ngir toog wax ak ñun ndax xam nañ ne sa emploi du temps dafa chargé ba tax na loolu yi de la ciy sant Touba TV Argentine moo ngi la ciy sant di la ci gërëm bu baax tey xam ne li nga wax yépp leer na képp koo xam ne yi tey senegal jëm ci kanam képp koo xam ne senegal jag képp koo xam ne sénégalais bi hmm. génn ci ndool gi ñu xam ne dugal nañ ñu ci képp koo xam ne tey jii hmm. ñàkkaar nga émergence ci sa bopp d'abord balaa ngay wax émergence feneen nga wax ko ci sa bopp d'abord képp koo xam ne loolu yitteel na la sa message bii dina ko déglu te dina ko jàpp te dina ko fonk te dina fexe ba lii nga xam ne mu ngi mu ngi ci say mu moo nekk sa pas dina fexe ba jàpp ci dugal ci loxoom ba yàlla sunu borom teg Sénégal ci say loxo loolu yi nu ngi la koy ñaanal nu ngi la koy ñaanal te di la ko yéene ci barkeb Serigne Saliou Mbacké yàlla na ci daje ak tawféex yàlla na nga ci daje ak ndimbalu yàlla Sénégal gii képp koo xam ne jóg na ngir Sénégal jëm ci kanam ngir Sénégal yokkute ngir Sénégal tegu ca mm. kaw ci dëkk yépp ngir sénégalais bi génn ci ndóol ngir sénégalais bés bu tawatee mu tëdd nelawu bay àndoor bu yeewoo suba dem xëy dem liggéey du xuus ci ay ay ay ay tali di xuus ci ndox sénégalais bi nga xam ne tey jii mm. du bàyyi étudiant bu am bac plus cinq dem di postule pour être un un comédien sénégalais bi nga xam ne. Mhm. tey jii lu mu te lam bu dee dàll lay defar sax dana ca mën a jariñu yor ci njabootam dina ci mën a suturlawu yor ci njabootam këpp koo xam ne sa yitte mooy yëkkati doomu Sénégal noo ngi lay tàllal suñu loxo di la xamal ne noo ngi jàpp jàppante nuñ ko waxee te it Sëriñ Tuubaa dafa wax ne waa man xalaxal baaba walla tu walat képp koo xam ne taxaw nga ci bunt di fëgg te muy bunt bu baax bul tayyi bul sonn yàgg-yàgg bunt ba dina ubbeeku kon nu ngi lay encouragé ci loolu di la wax ne tàllal nan la suñu loxo te dinañ ci jàpp noo mën a noo bëggee ñu jàpp ngir Sénégal yegg foofee nga xam ne fa la war a yegg ndax fii mu ne du place senegal mm-hmm. Sénégal fii mu ne euh, du place am Sénégal yi nii ñuy dundee war noo dundee noonu waaye dafa mel ne nag danoo toog ñun ci ci ci ci or di yalwaan përëm te loolu dafa war a jeex ba tax na monsieur le président mhm. waaw maa ngi lay maa ngi ñaan rek pour euh, sant bu baax waa gëm sa bopp foofu ci Argentine. effectivement ordinateur yi ma jiite. ñoom ñoom may euh, fay. waaw Pape Modou. Moustapha dëgg la bëri nañu sëñ Saliou Dieng. Mhm. vraiment ku ku ñuy jéem. waaye maa ngi leen di sant yéen bu baax it waa Touba TV Argentine. jërëjëf ci pas-pas. Euh, nit ngeen di def dafa bokk ci suñu di conscience. Mhm. day tax nit ñi bàyyi ci li defar Sénégal waaye da bëgg ñi ñuy mhm. te jàpp na ñoom waruñoo bokk ci mbirum politique. Mhm. dama bëgg ñu xam ne ñàkk cee bokk. mbay tax ñi nga xam ne. Euh, ay li may tuddee ay ñu mhm. ñoom ñooy jóg yow ndax nanguwuloo def ko mhm. kon nañ bàyyi xel ci defar réew mi mhm. suñu loxo nekk liy changer Sénégal ci suñu loxo la nekk réewu uh-huh. kenn nawlawu la Rwanda il y a vingt ans kenn nawlawu ko doon nañu fierté Afrique dëgg la ay nit ñi ko ji ñoom ñoo ko def. Mm-hmm. kon nañu nangu ne luy changer réew mi. Mm-hmm. ñun dañ ci am part de responsabilité. de bu jàpp ne man mm-hmm. waruma bokk ci ñi ci jàpp ne man gone daara laa war bokk ci ñuy décider ci réew mi mm-hmm. bul jàpp ne man maçon laa wala menuisier laa mm-hmm. waruma bokk ci ñuy décider mm-hmm. amul fenn fu ñu bind ni diw mi dong moom war a bokk ci ñuy diriger réew mi wala ñu jël ay décision kon jàppal yow mi ci sénégalais nekk dans la diaspora da nga war a bokk ci ñuy changer Sénégal yow sénégalais bi toog ci réew mi nekk fi tailleur nekk fi maçon nekk fi menuisier nekk fi uude lii sénégalais bi nga xam ne danga nekk gaar bu ndaw di jaay gerte jàppal na ne liy soppi Sénégal. Mhm. liñ ci sa loxo. dëgg war a jóg bokk ñu changer réew. Mhm. may sant bu baax a baax a baax. Mhm. yéene bi ñu am ci réew mi defar réew mi. bu dee ne Sénégal dong ñu ci tax a jóg ak lu ko toppam yàlla na ko suñu borom def. amiin seet addim jàppale amiin waay. bu dee ne am na lu ci laxatu lu may liggéey ak jëriñ Sénégal yàlla na ñu ko suñu borom xañ ba duñ ci jot. allahumma salli jërëjëf jërëjëf monsieur le président bu Bougane Gueye président mm. mouvement gëm sa bopp directeur général des médias noo ngi lay sant Touba TV di la sant bu baax di la gërëm ci sa disponibilité bi te di ñaan yàlla yàlla message bi yegg fu sa njot Serigne Euh, damay préciser rek mais je suis le président du groupe des médias. des je suis le président du conseil d'administration. Uh-huh. alors am ñoom am nañu seen directeurs généraux. Uh-huh. et cetera et cetera. mais je suis président du conseil d'administration parce que je suis fondateur. d'accord et c'est une passion. jëriñ la yéene la pour man. ci uh-huh. euh, di encourager jeunes yu bari. yu fay jaar parce que jàpp na euh, école boo xam ne. Euh, tey Sénégal moom moo ko moom. bañ ne ko ba tur bi seen TV la ñuy wax maanaam yéen seen teg. doonut man lu moom. yàlla moo def ma bokk ci ñi ko jiite donc jërëjëf. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di gërëm diaspora bi yépp nga xam ne ñu ngi doon teewlu émission bi tey ji gan ngeen am ku ne xam na ne gan gu tedd la gu sell. kon gërëm ko sax sunu làmbiñ bi dana tuuti ci ci ci wax kàddu yi nga xam ne. mooy mooy mooy yegg ci dayoo waaye ba tey noo ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci disponibilité bi waaye yéen it diaspora bi yéen it téléspectateur Touba TV Argentine noo ngi leen sant bu baax te di leen gërëm di leen jox dig daje beneen dimanche incha allahu rabbi boo àndee ak dogal yàlla ci beneen invité ak ci beneen jataay jële ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.